voie régionale inter Italie la ñu yóbbu foofee nag Augustin Faye taxaw seetlu bi mu fa def mooy euh, way tukki nga xam ne dañuy bawoo ci ay réew jamonoy mbas mi di dugg foofu dañoo gis ak yokkute ne téeméer boo jël sax daanaka euh, téeméer ak euh, juróom fukk maanaam cent cinquante pour cent ñu ne nag ñooñu ay migrants yoo xam ne wàllum koom moo leen faagagal seen réew ba ñu ñëw foofu donc loolu ñu naan asile mënuñu koo am lu ci mën a am gouvernement ba ñu ma ngay uti pexe ngir jàppale aji tukki yooyu naka lañuy ñuy def rek boo egsi ci réew aadama Augustin Faye la ñu fekk réewum Italie gàddaayu doomi aadama yooyee nag di jógee Tunisie territoire si nag Italie waral na ko crise économique ga ca réew googee mu waral ko mbas mi waaye it jafe-jafe yi ci wàllu doxalinu politique ci réew moomee di Tunisie diwaan gii di Sicile ak île bi nag di Lampedusa nekk na rek fi ñuy gën di teere ci réewum Italie ndaxte nag nu mu jegee Tunisie ci beneen fànn nit mbas mi nag ak couvre-feu gi ci réew ma Libye tax na nag be trafiquant yi di jàllale nit ñi nag di ko jaaree ci réew ma Tunisie ndaxte nag distance bi moo gën a gàtt ñu mën a teerit ci Lampedusa ak Sicile kii nak di El Hadj Kabo di liggéey nag ci web TV gii nag di euh, Diaspora Vision xam-xamam màccit nag ci wàllu migration def na ci ab njàngat ñu teewlu ko. Récemment, le ministre de l'Intérieur génn def benn déclaration nee na l'arrivée des a augmenté de 150 pour cent au cours des douze derniers mois. et la majorité nous viennent de la Tunisie lan moo tax ñu bàyyi axe habituel bi ngeen xamee woon moo mooy Libye Europe qui est de deux cent quarante kilomètres c' parce que en Tunisie depuis l' avènement du printemps arabe dafa am benn instabilité politique bi am si biir réew mi taux de chômage bi yokk jafe-jafe yëpp bëri fa lool parce que kenn xamul fan ngay taxaw et puis boo xoolee la distance Tunisie Europe c' est trois fois moins l' autre distance tous ces ingrédients là boo ko boolee est favorable lool à ces trafiquants-là pour jël axe boobu bu bees boobu. d'ailleurs le lundi dernier le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères dañu fa delluwaat le président ne que que l'union économique européenne dañu taxaw pour jàppale leen à hauteur de onze millions d'euros pour ñu jéem a faire face à la situation chaotique bu ñu dund au niveau de la Tunisie. cependant bu ñu ba jàll ba pare ces clandestins ba ñëw en Italie am na ay centres yoo xam ne fa la ñuy téye récemment on a noté aussi que si biir centre bi. ñu bëri dañu en testé woon ñu positif li gën a métti italien yi nag mooy si ñooñu dafa am ñoo xam ne dañu fàq dem dugg si biir réew dañu rëcc si biir santé bi d' ailleurs si la opposition bi profito ku mel ni Salvini commencé di indexer le gouvernement Conte que ils sont incapables de gérer la situation ñoom pour ñoom ce sont ces clandestins la ñoom ñooy propager feebar ñu tax ba feebar bi gën a yokk donc lii mooy loo xam ne en grosso modo moom lañ mën a wax ni ki moom lañ dund fii en Italie bi. nga joxoñ bu gouvernement bi gouvernement bi est en train de faire toutes ces possibilités pour jéem a génne si jafe-jafe bi ñu mel. gàddaay gi nag mu mel ni rek du yomba dakkal euh, tax na it be euh, kii nga xam ne nag moo di Luciana Lamorgese di ministre de l'intérieur bu réewum Italie ak kii di Luigi Di mayo di jawriñ nak ji yore lépp lu jëm ci wàllu diplomatie ci réewum Italie amaloon nag ak tukki altine gi ñu génn ci réewum Tunisie ndax rek euh, mën a laal pexe yi di dakkal nag gàddaay gi. aywa Augustin Faye ca Italie mu ngi noonu ñuy gis Augustin ñu ngi lay nuyu di ziar communauté sénégalaise bi nekk foofu yëpp ca Italie Augustin waaw mu ngi noonu ma ne ginnaaw bi ñu la ziyaaree nuyu communauté sénégalaise bi nekk foofu ca euh, réewum Italie Chérif jant fa fenk na fa bu yàgg <laughs> nga ñëw nag ci euh, reportage bi nga xam ne def nga ko muy migrant yooyu bawoo Tunisie euh, di dugg ca réewum Italie jamono yi mbas d'abord itali fañ leen fan leen toll ci xeex coronavirus gis nañu ni mu leen sonalee woon. waaw euh, soxna Fatou comme ni nga koy waxee rek euh, xeex bi jëm euh, ci corona bi daanaka réewum Italie def nañ ci ay jéego yu yu am solo daanaka wàññeekoon na nag baax a baax a baax te nag ci fan yi gis nañ ne daal gars yi commencé waat bëri nag surtout nag ci jeunes yi. Mm-hmm. parce que bu ñu tàmbalee feetu quinze août yi ubbi woon nañu tuuti ni. dem vacances yi plage yi discothèque yi ubbi woon na mais nag après gis nañ ne kaay daanaka yokkuwaat na daal. beneen ponk bi aussi moom mooy lu jëm ci wàllum euh, migration migrants yi nga xam ne bawoo nañu fële euh, ca Tunisie pardon di dugg foofu ca réewum Italie. waaw euh, loolu beneen phénomène la bu am euh, depuis nag bi at bi tàmbalee fii ci réewum itali parce que gis nañ ne migrants yu bëri dañuy jóge nag euh, booru Tunisie di fa fàkk nag di ñëw fii ci réewum itali ñu gis nañ nag li ko waral mooy crise économique ak crise politique bi am foofu ci réewum Tunisie ak jafe-jafe yi nga xam ne nag am na ci ñi nga xam ne ñooy saytu ndox bi maanaam géeju Méditerranée bi bi at bi tàmbalee nag ba léegi lu mott vingt et un mille ci ay doomu aadama traversé nañu géeju Méditerranée bi jógee nag Tunisie di ñëw nag fii ci réewum Italie loolu nag jaaxal bu baax euh, autorité italienne yi bu bu baax a baax parce que bu ñu ci laxasee mbas mi euh, day xaw a waar parce que ci ñooñu di fi rek si seetlu nañ ci ne euh, am na ñoo xam ne ils étaient des cas positif ba ñu mujjee interné leen ci centre de rétention yi ba sax am na ñoo xam ne jotoon nañ ci rëcc loolu nag indi tiit ak jaaxle ci gouvernement bi tax nag ba ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje politique bi surtout ci opposition bi di ko instrumentaliser. naan migrants yooyu dañuy gën a propager daal li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy jàngoro ji. foofu ca Italie Chérif a ngi naan jant fenk na fa. waaw jantu fenk na comme ñoo ngi ci euh, jamonoy bër moom euh, man maa ngi fii toog ci benn jardin xaw na tàng nag wala pour pour feexlu. ban heure moo jot. <laughs> alors euh, fii il est 11h moins quelques minutes. voilà 11h moins moins 5 moins 5 voilà. dégalage bi métti wu ñu waa Italie di profité d'occasion moom jàll ko ndax fan yi moom Augustin ñàkkoon na benn frère am fii Sénégal. ñu koy jaal baax ñaanal ko yàlla mu yërëm ko xaare ko àjjana euh, jërëjëf jërëjëf Serigne Serigne jërëjëf euh, plateau bi aussi ñu ngi lay jaale sa frère boobu génn àddina euh, di leen ñaanal borom bi may leen xolu muñu Augustin Faye la woon di ko masaw bu baax ci gis woowu dal ci moom mu doon addu fële ca réewum Italie ci miroir régional inter nañu jàll ci allo présidence